dara xew waaw waaw dara xewul doomu aadama mënul bind doomu aadama yàlla rekk a mën a bind doomu aadama waaw waaw yi ci des yëpp font la doomu aadama mënul bind doomu aadama yàlla rekk moo mën a bind doomu aadama yi ci des yëpp font la waaw te am na lu ngeen war a xam nag am na lu ngeen war a xam nag tabarkalla la bëgguma tiitaru je n'aime pas waaw parce que dafa ñàkk fayda parce que dafa ñàkk fayda parce que dafa ñàkk fayda tiitaru dafa ñàkk fayda ñàkk fayda ku jàpp ci dara doo tiitaru ku jàpp ci dara waaw money. kii sunu mame bop ji moo ko wax góor gi Moussa Ka bu mam Serigne Touba moo ko woy sëriñ Babacar Si te maam Cheikh ko ko digal yu xaaki nee na sëriñ Babacar yu xaaki Aba Bakri xalifata Ahmad yu xaaki Aba Bakrin xalifata Ahmadin bi xilmin وعلم لا إلى الكفر يهرب te ndokkeel sëriñ Babacar ci dellu si maam Cheikh Anta ci réew mi moo tax mu def ko ah wax la ni nit ki dafay am yu muy tëye भक्त अम्न ku nekk la ngay sàllite euh, man bokk na ci li may sàllite mooy na ma tuddal ku noonu sëriñ Babacar ba noppi ma sopp ko tuddal leen ma ko mënul nekk mënul nekk te nett

te réew mi li ñuy ñaan mooy mu mucc mais am na loo xam ni ku ko fi def du mucc ma wax leen ko nga ni daaw wax naa leen ni yàlla dana fal terrorisme ngeen weddi ko mais na ngeen def très attention ku ci foye dëgg di indi ci réew mi loo xam ni ñëppay ñàkk te lool dara jaru jaaxal baaxul caaxaan baaxul caaxaan baaxul te nettali naa leen ko euh, dee sama wàllu turandoo dafa mel na ma nit di mën a féetale feneen fudul fi ma Sëriñ Babacar féetale te eh, ni mu neexe ëpp na ni mu neexe ëpp na su ko defee ñàkk sago li ma déggoon bés xaaji maajoor siise wax ko ni ma am na loo xam ni du coïncidence booba benn nit dafa nekk ci service am am bu ma bind ca service ba mu di ma tontu secrétaire am def Cheikh Tidiane si mu ne ko dindil cheikh ti cheikh bi waay bàyyi ci rek tijaan ni ko ma jël beneen enveloppe bu ni ko déedéet dindi ko ba mu xam ni dañu dindi cheikh gi xanaa loolu ci la ñàkk sago yàlla àtte ñu indi leetar bi boole koog mu daje faak leetar bi ma waxee loolu ma xotti lettre bi gis ko ma ne ko may ma ma jàngal la lettre bi nga gis ni yàlla di defe ma ni ko leetar bi sama wéyjur wu ñu wax El Hadji Ñas ca Kawlax moo ma ko bind وخني الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى حضرة ولدي الحبيب الأديب الأريب العلامة الشيخ اسما وصفة. maniko ken xamul lu dajale ñaari lettre yi fi maniko motax tawat munul nek حضرت ولدي الحبيب الأديب الأريب العلامة الشيخ اسما وصفة أحمد تجاني دام عزه أمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقد رجعت من سفري بعد غيبة دامت ثلاثة شهور وكنت أود لقاءكم قبل ذلك ولم يقدر الله واليوم تأكد علينا هذا اللقاء بور وخلني Euh, tuuti ba mu ëpp baaxul te am na ci façon yoo xam ne dara juru ko lu dul tuuti e, mu mel ni kon nag am na lu dul soppeeku lii du soppeeku ci kàttanu yàlla فتبارك الله أحسن الخالقين يبري دمكوي تاي ندخ داني كي لا سيتي دي زومبر لي لي ني تودكو te dafa mel ni ndeysaan Senghor def fi ñëw wax ca gàmmu ga nii gëmuma njabar faatiya sëriñ Babacar Si laa ba mu demee ku ma téléphoné ni ma